basumo basumo mbare sukononko abidje iba famare dia fii dofi aujourd'hui on va un peu développer le truc parce que je vois que jusqu'à présent on n'a pas compris jusqu'à présent le peuple est macabre jusqu'à présent quand je vois des jeunes qu'on ramasse comme ça leur corps je sais que le peuple n'a pas compris Jusqu'à présent, quand je vois la presse manipuler le peuple sur des dialogues, pourtant le protocole du Cap Manuel, rappelez-vous, allez dans mes lives. Ça fait deux mois, je vous ai dit que le protocole de Cap Manuel à démarré. Mais son comme d'habitude, il a catégoriquement refusé de signer ou d'écouter. Il y en a qui ont montré le contraire. Tout le monde les a écoutés. Ça, c'est patriote. ku wax lu leen neex rek moo leen intéressé le protocole de Cap Manuel Bassirou Diomaye Faye qui a même refusé de voir certains je vous l'avais révélé ça fait deux mois mais dommage il y a une magie qui a destitué Macky Et au Sénégal, cette magie-là devient le cinquième pouvoir. C'est pour ça que je vous réclamais chaque jour le chiffre 5 qui peut battre le système. Il y a le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir de la presse et le pouvoir du clic-clac. Ça veut dire Internet, parce que aucun des pouvoirs ne nous a accompagnés sur ce combat. C'est aucun des pouvoirs ne nous a accompagnés sur ce combat. si ce la magie du clic-clac, l'Internet, si ce n'est pas l'algorithme. Rien ne va faire gagner Sonko. J'ai discuté avec un vieux que j'ai dit que non, les Sénégalais se battent sur l'Internet, les Sénégalais se battent. Il m'a dit que, euh, fisson, c'est l'Internet là qui a limité les dégâts. C'est l'Internet ki a limité les dégâts dans notre combat. Malgré que des fois, il y a de l'humour dans le combat, mais c'est l'Internet qui a limité nos dégâts dans le combat. Et eh! est à un muet comme Amadou Mamdiop gouverner le Sénégal, gouverner l'Afrique de l'Ouest Ou éliminer Macky Sall favoriser un coup d'État ou bien laisser Macky le continuer sans Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye Faye ni Cheikh Tidiane Dièye Ousmane Sonko il a refusé de négocier il a refusé de dialoguer maintenant il va subir subir les foudres du système car le peuple est encore incompris. Le peuple n'a pas encore compris. Le peuple n'est pas encore au rendez-vous politique. Parole de Sarkozy. L'Afrique est mal rentrée dans l'histoire politique. Parce que l'Afrique n'a pas compris que la démocratie, ce pas une chose joviale ou une chose d'humour. La démocratie, c'est que vous, entre vous, bas peuple, vous vous concentrez, vous vous regardez entre vous, vous vous dites la vérité entre vous. Mais il y a des omniscients, il y a des gens qu'on ne touche jamais dans la démocratie. C'est ça la démocratie. Là, le Sénégal va mal, le pays va mal, tout le monde va mal. Et on aura plus mal si on laisse cela se dérouler. Préparons le combat. Moi, je suis dans un combat, je ne suis pas dans vos petites affaires. Négatif. ñu ne jal jóg Macky Sall ngi jal rek askan bi jógaguñu ñu ñëw wala fa tise ko ne ko jal jóob ñii dunu ay sëtu jal jóob ñi fi toogoon di wax kenn du ci sëtu jal jóob jal jóob jal jóg wala jal jóob ban la ñu war a wax ak ban moo nekk ci université yi allez ma vérifier les documents wolof du langue bu beesan ah. te yéen ci tubaab bu ñu leen andi lañ leen di jàpp di leen fen di leen nax ruutale réew mi éliminer Ousmane Sonko éliminer basir Diomaye Faye Ismaïla Madior Fall il a été très clair ñoom dossier Adji Sarr bu dee bu juin deux mille vingt boobu ñoom bokk nañ ci te boobu dinañ ci amnistie seen bopp mais dossier Adji Sarr rapport de la gendarmerie boo toppee ba si biir kan la épinglé Ismaïla Madior Fall nee nga dossier boobu bokk ci bu si dossier boobu bokkul rek Marème fay Sall dootul mën dugg senegal boo abadan ndax moo def complot beek yëpp Amadou Ba mi ak ñoom Moustapha Diakhaté Khadim Gadiaga ñoo rey boo yëpp ak ma ñoom Madiambal Diagne dossier boobu bokkul si amnistie bi pour lan bokkul si amnistie bi parce que état mënu ko jël en charge yoonu état nekku ci ça a été un dossier farfelu un dossier très bidon déroulé par des civils déroulé par des gens inexpérimentés comme booy boobu sant mbay yaa ngi ne sacrifié nga sa bopp Macky am na lu ma leen waxoon ci dossier Adji Sarr ne woon naa leen dossier Adji Sarr dinañ toll foo xam ne nag teg Adji Sarr sur la table tëj ko day jot te man waxoon naa leen de féministe la nay leer du ma wax démb tey ma ñëw ñu may wutal var nekkuma ci loolu Adji Sarr moo am vingt un ans vingt deux ans ñu ne moo tax Sénégal bëgg xalaat bu yomb la wala être limité man nekkuma ndey si yooyu moo suma wax si loolu mais tey dama si wax ndax je me sens à parce que ça est derrière nous et ça revenir devant nous dossier Adji Sarr bokkul am amnistie bi xam ngeen lan moo taxam ak ñoom Amidia ñoom Ousmane Kabiline ñu si bëri dossier boobu tax ñu jàpp leen ñu ci bëri tey dossier boobu tax ñu jàpp leen rey nit ñooñu xam nga tey nag fan la coow li toll Amadou Ba dañ koy sacrifier Ousmane Sonko dañ koy sacrifier Bassirou Diomaye Faye dañ koy sacrifier ndax lan Cheikh Tidiane Dièye du gagné Habib Sy du gagné dossier Adji Sarr bu ñu demee d'ici un an deux ans buñ ko ubbeewaat Adji Sarr li ñuy jël def ko agneau du sacrifice tek ko sur la table pour neexal sénégalais joxaat leen Doliprane lu ma dul nangul benn sénégalais nay leer dee maintenant ñi ko doon jàppale ci ay fen ñoo xam mais buñ ko bëggee sacrifier bàyyi fi ñoom Mamour Diallo bàyyi fi Marème fay Sall ah laa foog gor yi jóg taxaw foog ñu jëlandoo ñëpp tëj ci kaso bi wala ñu baalandoo ñëpp Ismaïla Madior Fall c'est à toi de choisir yow rek ya war choisir combat bi nag fexe nañ ba yóbbu ko ci politique ba ñun ñëpp ne wooy daw ci politique bi ñu na ñu yen waa Sonko bokk leen ci foog ñu rendi leen kon xam ngeen ne Macky Sall l'a pas fait sciemment il ne l'a pas fait seul am na politiciens yi doon yuuxu wante tey bi mu leen leeree ne Ousmane Sonko génnatul commencé nañu waat caravane tey ku si mel na Khalifa Sall tey la commencé waat ay activité politique am ndax tiitoon na foog ne dañuy bàyyi Ousmane Sonko nee naa leen fii xanaa déggu leen li ma leen wax Ousmane Sonko xeex jàpp Macky Sall balaa mu koo jàpp moo gën a wóor Ousmane Sonko lañ jël def leen dolli prendre te xeex bi du xeex Ousmane Sonko ça dépasse largement Ousmane nee naa leen Ousmane Sonko est trop petit pour libérer ses prisonniers Macky Sall est trop petit pour reporter les élections ndax dama yëg di xew ci protocole bépp xam li Amadou Ba duul France xam li américains yi teg sur la table ba wan Macky Sall ne da ngay duul crime yi yow la ak ay France 24 Macky Sall mi naan lan presse étrangère bee ko contre fàtte gouvernement yi da ngay duul France si boppam ñoo lay jaay France si boppam ñoo joxe say dossier sans la France la France 24 ne va jamais parler de toi da ngay duul tu mens sa ndey day duul sa baay day duul yow ma kii tu mens yéen ñi doon wax focus balaa nga naan balaa nga naan naam ne fa kuy dem kuy dem mooy focus boo xamul foo jëm xeexis nga war def xeexis xeex ba naaw mooy xeexus xeex xeex xeex neex naqari fa lañ jëm neex naqari fa lañ jëm éliminer Pastef nag éliminer Ousmane Sonko ñu ne ñun dañuy xeexal pour Bassirou Diomaye Faye nekkaat candidat wara pour Ousmane Sonko nekk candidat te Pastef mos na nangu finance combat mais vous ne pensez pas que le, le peuple est en de comprendre ba tax na moment yi par conviction la ñuy xeexee maanaam ñi nga xam ne xeex bi leneen moo leen ci andi xeex moo leen ci andi conviction Sénégal moo leen ci andi loolu c'est une minorité extrême parce que dootul ñëpp lay jaral seen bakken xeex bi man de je ne vous pare naa lépp xam lan laay xaaram yéen population gën leen dëggu xool coow lu jeex Amadou maam Diop tëb Macky Sall tëb te yéen Amadou maam Diop bi yéen gars yi ñu ngi leen di jox un problème de tey benn nga dem kilifa wax na ma ko est-ce que Macky Sall dafa tas Sénat bi mooy li Aminata Mbengue Ndiaye jiite woon est-ce que loolu dafa tas maa xam nga ne loolu moo ëpp doole assemblée national CRAES xaw ma mooy fi ñu ustaas yi nekkoon ak ñooñu CRAES CRAES moo ëpp doole assemblée nationale allez vérifier les textes Sénat moo ëpp doole assemblée national kon tey bu Macky Sall tey démissionné kan moo fi war toog <laughs> Amadou Mame Diop moo fi war toog wala ta Mbengue Ndiaye xam nga poste boobu Idrissa Seck moo fa nekkoon bi mu ne Macky Sall amoo def troisième mandat lañ fa génnee Idrissa Seck kon Idi ti boobu moo ko noppiloo tey parce que moo xam Macky deal bi loolu la woon au pire des cas bu dëkk bi jaxasoo bu ma démissionné yow nga def transition bi moo tax Idrissa Seck il était convaincu à cent pour cent un jour le président de la République moment bii nag sa Seck dafa toog ci banc de touche bi te boo ko dugalee si match bi di joxe kon on passe sur lui lenn rek moo fi des lenn moo fi sës bu ñu kenn ci ay texte CRAES moo jiitu assemblée nationale CRAES moo supérieur assemblée nationale mooy Sénat moo supérieur assemblée nationale kon Macky buy démissionné du fi teg ndey doomu Marème Faye Sall du fi teg suq Marème Faye Sall du fi teg dunguru Marème Faye Sall négatif à mois que mu tas Sénat bi non mu tas kii CRAES parce que bu njëkk Sénat la tuddoon mooy bi ko Pape Diop di jiite yooyu yëpp ay code la te di ngeen dégg coow li judduwaat bu leen kenn ne Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop ne peut rien gouverner mun mënuñoo tëb CRAES bi dugal am conseil économique environnemental je ne sais pas et quoi et loolu mooy tas affaire bi mais loolu yëpp ndax ñun dañ ko fiy xaar bàyyi suñu doomu militaire yi foog ñu xam lu ñu bëgg li ma leen waxoon laa leen waxaat tey leer na leen ne tey mënuñu fi génne Macky Sall jël usmaan Sonko yóbbu ko pale leer na leen ñun ñëpp leer nañu suñu diggante ak suñu borom xam nañ ne kenn mënu fi jëlee Macky dem génne Ousmane Sonko kap man yoolu yóbbu ko pale munta ne kon borom fetal yi ñëpp di daw pour lan ñuy daw borom fetel yi tey militaire yi tey jiite pour lan politiciens yëpp di yuuxu yàlla bu mu ñu dal yàlla bu mu ñu dal yàlla bu mu ñu dal déedéet pour lan yàlla bu mu ñu dal te ñoom ñu jàng kom yéen am bac école yi ngeen amee bac les mêmes professeurs jàngal ñu foog ñu xam li ñu bëgg de moment bi coup d'état mooy li gën sedd si ñun patriotes yi coup d'état laa la wax mooy li gën a sedd si ñun coup d'état moo li gën sedd si ñun xam nga lan moo tax ku d'état sedd si ñun xamu leen armée nu muy doxee ana Gabon deful coup d'état mais est-ce que ñeme na topp intérêt France à cent pour cent xalaatoo ko parce que boo ko defee yeneen ay borom fetal ñoo la wër ana can yi nekkul woon garde républicaine te coup d'état bi nu muy munti demee lu si ñaaw si Macky Sall lay jógee Macky Sall lay njëkk a encaissé ko ñun voté nañ amnistie bi mooy Ousmane Sonko yàqu na bokkatul reporté nañ élection bi décembre mooy Bassirou Diomaye fay bokkul kooku moom foog ñu nangu ko dee mel naa ñun ñëpp kaso bi am na ñu bëri ñoo xam mun ñu génn parce que du ñu bokk ci amnistie bi dossier bële lañ leen tëjee Oscar voilà du sax dossier Adji Sarr dossier Oscar la ndax si la ñu reyee ñoom Dija Badji ak Fulbert Samb te Dija Badji Macky Sall mi leen convoqué ñu ñëw mu rey leen moom dafa jël affaire bi moom léegi moom dafa gëm ay fenam ba gëm à cent pour cent que Ousmane Sonko moo leen rey ba pare nag defar ay dossier fàtte ne général Tine moment yi bu réew mi demul coup d'état ba tey nii bu réew mi duggul tey ci guuta ba tey général Tine ci teg tànkam de sinon bii heure yi faxas nañu waa ji bu yàgg laaj leen démb si guddi ñan ñoo nekkoon conseil de conseil de sécurité y a de nouvelles têtes quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans ngeen dem ba dans l'armée ay catholique ñooy toog réunion pour stabiliser dëgg bi ay gurumèt au nom di Père et du Fils et du Saint-Esprit amen Mariama der bu ñuul kukku la buñ demee ba même dans l'autorité dans la haute hiérarchie étatique c'est les chrétiens qui osent di stop allahu akbar te ñu ne Sénégal dëkku sëñ Bamba la dëkku limaamu la dëkku xawma kan la ñun ñëpp ñu ne ay julit lañ di seetaan lii di daw ñu ne non dañuy xaar focus jëmmi sëñ Bamba laa leen di wax tey doo dem bu ñu xeexul ak Macky bu ñu xeexul ak système bi du ñu dem kilifa yu gën a mag gis nga ñi nga xam ne ñooy sax état seen problème mooy lan jeu bi leen Sonko joué ça a tourné la tête de beaucoup c'est que jeu bi Sonko joué moo yàq gravement xam nga moment yéen ñun ñu na noo maki Macky moo def lu ko neex. Macky Sall moo reporté élection yi waaw si ñun waaw mais en profondeur dem leen dañ leen naan lu yàqu ci dëkk bi Sonko ko yàq tey ndax tey Bassirou Diomaye Faye bi mu ñu àndul teg loolu moo faussé tey kullu fadrin lu waay calculé woon en deux mille vingt quatre tu vois le faussé ndax lan Bassirou Diomaye Faye kon Sonko politique la def wala révolution mais révolution la Sonko def tey mag ñii maam yu màgget yi feeñ yëpp ci dialogue bi ñan la est-ce que ñun xamoon nañ ne maam yi nii la ñu mel déedéet mais yéen tey jeunesse bi lépp a leen leer problème bi problème bi lool Sonko day mun jaloge moom amoon na ay élu pourvoi en cassation bi mu dugal ko gars yi bàyyi ko moom mu génn mu dialoguer Bassirou Diomaye Faye xaar wa ila moom day perte Bassirou Diomaye fay day perte dinañ leen fi falal président boo xam ne du ñu neex wa ila armée Macky Sall daw génn réew mi mbaa ñu dóor ko bal mu dee man Macky na dee man Cheikh Anta Diop ah benn charte Cheikh Anta Diop li mu waxoon amul benn xalif général bu ko wax mooñ ne quatrième président bi mooy njëkk reporter élection quatrième président bi moo fi gën a tuur deret quatrième président bi jógeem fii ragal naa day daw mbaa ñu ray ko Cheikh Anta Diop ba ko fi waxoon de te li mu waxoon yëpp am na leen rek a ci des jógewu Macky Sall fii kañ la Macky Sall di fi jóge ak ban façon la fi jógee dem dëmma gëm waxi Cheikh Anta Diop ba tax ma moon monte nganta mouvement panafricaniste mouvement Kémit Diop moo tax tey ma commencement man leen Jal Diop wala Jal Diop ban lañ ci war a wax boobu live spécial la Jal Diop wala Jal Diop mais ñun tey Sénégal dëkk yëpp am mouvement kémitisme bi mooy africain mooy lan der bu ñuul wax dëgg démb amul benn africain ku ñëw sol yëfu africain taxaw wax ak Macky Sall wax ko dëgg amul église bi kese te moom sax bi mu ñëwee tubaabeewul démb église bi kese ko wax dëgg wala ana ñun suñuy dignité maam Afrique bu njëkk boo daan violé mais dañuy dagg say koy ak say xuur sànni dëkku naar moom nga gisoon ñuy tàpp góor dañ lay séquestré nga def deful mais dañ lay rendi parce que t'es plus humain Si tu n'es plus aimé, on doit de la société. Donc c'est africain, c'est pas religieux. ay dagg loxo yëpp fii la ko diine fekk africa la ko fekk man mais léegi lan moo andi bàkkaar banal astafurla moo andi bàkkaar banal ak je vais aller ma confesser moo andi bàkkaar banaal moo tax man leen tey man en tant que africain tey manque de dignité tey bu ma gis tey ci religion ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee suñuy kilifa diine tey buñ li ñu def si magistèru Macky Sall bu ñu taxee wax Macky di wax nga séexlu leen yow sax yow da ngay séexlu yow yow da ngay séexlu nekk ci diine ji man dama séexlu waaw yow da ngay seexlu sax yow ne musulman nga moo ñu commencé dal da ngay séexlu na yow musulman nga boo nekkee tey senegal di woote woo dina ñëw xumbal ñu suñu maam ñu ngi biir Ziguinchor toog ni Sonko muñal rey maki Sall mooy solution bi maa ngi wax di waxaat armée bu mën a jël pouvoir man je préfère partir avec mes frères d'armes armée bu mën a jël pouvoir laa leen wax nag comme Moussa Fall day soppeeku yàlla na la yàlla jëpp nga soppeeku dëggal ñu nday Macky dóor ko bal affaire bi jeex nga xam naa ne te capable sinon yow lay sacrifier général Sène kii yéen lay sacrifier bu fekkee yët naa Moussa Fall bi ñu xamoon moo nekk tey général am na si génnew la si yàgg nañu xam ne réew mi yàgg naa ko live lu loxo def loxo mën na koo dindi du ma dugg ci wax ji lu loxo def loxo mën na koo dindi lu loxo def loxo mën na koo dindi kon ay amnistie yi ngeen ni ci tardé ci débat yi Sonko bokk na ci bokk ci on s'en fout lu loxo def loxo mën na koo dindi xam la lan la loxo war lan la jëmm war def nag lan la physique war def loo xam ne physique du ko génnee ndax physique gu peuple bu 17 millions d' habitants même pas 30 000 policiers et gendarmes ñu bëgg ñu défier ñun 17 millions déedéet ñi dañuy jàkkaarloo ñoom ah. le combat là va être très très très très sanglant maa leen ko wax tey. parce que ñii bu ñu xasee signé amnistie bi bu jàllee assemblée rek boo leen xëyee semaine prochaine di ngeen dégg loi yoo xam si Ousmane Sonko ak procès Bassirou Diomaye Faye da ngeen ciy jot procès Bassirou Diomaye fay nii oh. bu naa compris moo tax may dégg ay focus ak paras rien de rien le peuple ne l'a compris te c'est dommage que dañ leen di dóor doli prendre bàyyiwaat eferal gan bàyyiwaat dafal gan bàyyiwaat mais bii pas ça sera très fatal maam Diop nag bu fi naree toog coup d'état mooy am basiru gagné na nungu ñu réew mi téye lan moo ci des fen buy defar moo gën dëgg bu yàqu noo fen buy defar moo gën dëgg buy yàq oui ou non mooy ñun senegal ci lañ ñu yar ci la ñu màgg tey nag dëgg buy defar moo jot de te jeunesse bi sëriñ bi nee na dégguñu ko de cette jeunesse là dégguñu sëriñ bi nee xam nga cette jeunesse lu ñu dégg yàlla nee na ñu ne la ah, lan la mais ne leen sëriñ bi nee na ah, ah, ah, waay waay pa booy noonu la ñu kenn mun si dara moo tax yéen jeunesse bi chaque life dama leen koy wax yéen la di ngeen ñu létt mbaa ngeen firiñu toog di saaga paa yi c'est trop facile c'est trop lu xew ci àdduna jeune yaa ko def yéen yéen a yor karaw bu ñuul yéen a soxla tekki ci àdduna yéen a soxla développement ci àdduna yéen la yàlla soxla yéen la seytaane soxla yéen la réew mi soxla yéen nag yéen xam na boo yéen la c'est la jeunesse ñun suñu wàllu wéy naa de man senegal defar naa fa ndeyam ay doom ba samay doom commencé am doom kon yéen eh, eh, booy bébé yéen sama doom yi eh, yéen laay waxal de saa yi ma xeex ba tey nii moment yi même problème mu dox dam koy am sama ndigg bi gis ngeen ni ma weexee nii du ma nelaw ba pare tey ba tey mag ñaay jóg di leen xeexal déedéet yéen la jeunesse eh yéen ñi am ba 16 ans laay waxal yéen ñi am saison di def BFM ren eh boo leen defee ENSOA da nga ni nekk nday ay sous-officier non yéen laay waxal yéen mais bébé yéen laay waxal le continent waxuma leen le pays le continent ça vous appartient màggal leen seeni maam gëm seeni maam jàng lan mooy seen tradition yëfu naafiq yi mag ñi nekkee yéen doo leen si dugg mag ñëpp ay naafiq leen gis nga leen dundee nañu islam yàgg nañ lekk ci islam xam nañu nu ñuy ruutalee xam nañ nu ñuy ràmbaajee xam ne nu ñuy kattee xam nañ nu ñu biiralee yéen nag nekku ci loolu dem leen ni ko ñaan yéen la jeunesse léttu leen ñu maa ngeen ñu firiñu li laay war a suuli jël leen seen réew imposé fal président parce que nu mu mënti demee moment bi ci mer la ñuy falee président liñ daloon si Macky Sall daf ñuy dalaat bëgg ñun ñëpp gëmm Ablaye Wade ak Macky complot góor jigéen ñu ñëw juge yëpp encaissé ñi si amoon jom gis nga dañuy noppi parce que sont une minorité Macky Sall nekkul peuple bee ko fal de déedéet nekkul peuple ko fal négatif mer ñàkk xam fu ñu jëm moo ko fal mais bii paa ñu xam fu ñu jëm ngeen ne doo leen fa dem ba pare yéen ñu bëgg leen ko imposer Sonko war dem ba 2034 pour présenter wu di ngeen ko nangu Bassirou Diomaye Faye ñu effacé ko est-ce que yéen di ngeen nangu loolu eh xeex xeexation xeexamaa xeexare ñun Sénégal ñooy jóg ñun mouvement Kémit bii eh yéen mouvement bii gëm seen dignité gëm ne seen dignité bii seen dignité bii moo gën loo gis si àdduna laajal fii sama entretien yëpp moo tax damay perte entretien rek qu'est-ce que tu ramènes à notre société ma ne ko ma dignité vaut plus que votre entreprise moom laay andi te fu ma liggéey toj fa ndax ragalu ma liggéey man noonu laay tàkkee xeex xeex Macky Sall faluñu ko amul kenn kuy regretter ñun ñëpp a meroon Moustapha Niass gagné Moustapha Niass mooy loolu dëmm la Macky Sall li mu jox tegoon ci table bi moo gën a bëri mooy li Amadou Ba teg tey te xam ne mënul nekk mais Amadou Ba woo Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ñoom ñett ñëpp la ñuy boole tër rendindoo benn tabaski bu ñu xeexulee Amadou Ba nag yàlla nañ ko rendi mais Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye par force kenn day dem parce que Sonko li ngeen bëgg Sonko nekk candidat Bassirou toog xaar ça n'aura pas lieu Ousmane Sonko a dit non ñett ñett stop c'est négatif maintenant même il ne reçoit plus il ne discute plus léegi nag moom il va subir subir les foudres du système nous les anti-système nag on doit sortir Ousmane Sonko de là où ile est quel soit le prix à payer quel que soit le nombre de morts quel que soit les jours quelque soit paralysé bu ñuy paralysé nday réew mi moment yi da ko war a jël avant le 2 avril Ousmane Sonko génn balaa procès Bassirou Diomaye Faye bi di ubbeeku basuma basuma mbare su ko non ko Abidjan Iba Famale mouvement Grand Afrique Kemit Diop Cheikh Anta Diop